waaw mbokku téléspectateurs yi ñu suivre sur la TMS TV euh, comme ni ngeen ko gisee ci image yi euh, ñu ngi war maintenant recevoir un patient un jeune patient qui est de son parent mooy dugg si noonu hmm, habillé en jaquette hmm, euh, accompagné de son de son de parent waaw mu ngi nii toog na yegg si na toog na sëriñ bi dalal na ko. Hmm. mu ngi ànd ak xale bi hmm? mu ngi ànd ak xale bi hmm? donc euh, yéen a ngi ñuy suivre sur la TMS TV waaw sëriñ bi nag jaune tey foofu la génn <laughs> loolu commenté nañ ko ba pare voilà voilà donc euh, waaw soxna si euh, d'abord yow tur wa maa ngi tudd Aminata Coulibaly Aminata Coulibaly fan nga dëkk. man fii Bel-Air. bel nga dëkk lu doon say tànk fii tey. waaw damay indi pour mu faj sama doom bi. waaw. waaw mais bu mu commencé bu mu ko commencé faj ba léegi ñu ngi siy gis tan. Ah. waa ah, moom nan la ko yëf yi doon dikkee. non yëf dama daanul woon daanu sax. Hmm. waa parce que école daal bu ubbee rek wala buy jàngi day feebar tout le temps tout le temps. Hmm. mais fépp fu ñu dem ñoom kiiwul daal. amul gis waa gis ñu si benn résultat. waaw léegi nag bi nga ñëwee daal gis sëñ moom gis nga ne xale bi mu ngi am tànn. waaw alhamdulilah parce bu ma ñëwee sëñ daf ma daa am ay jinne mhm. waaw mu jox ma garab vite fait bi. Mhm. ak cuuraay jooni jooni bi. Mhm. léegi mu koy kii di ko sang di ko suur di ko sang di ko suur après affaire yi commencé manifesté wu. Ah, mu commencé di génn. waa affaire yi commencé di génn di wax. ñoom ñoo ñoo ñoo ko yàkkal jàngam. bu jàngee ba pare ñooy ëf. ñooy ëf xel bi après lu mu jàngoon yëpp mu naaw. boo ko sangee rek moom 40 jours moom moom bi ma ko sangee parce que dama ñëwaat sëriñ bi ne ma yow koo continuer di ko sang rek mhm. man tam ma dem man tam ma commencé def noonu mhm. vite fait bi am na ñum si rey sax waaw am na jinne ñum si rey hmm? waaw kon daal macha allah gis nga ne daal am na solo trop macha allah vite fait moom dimbal njaboot la mhm. vite fait hmm. njaboot bu ne war na ko am sa biir kër waaw gànnaayoo ko sax bañaka waaw Ousmane nan. Traoré. yaa ngi jàng. ban classe ngay def. CM2. CM2 yéen def ngeen compo ban rang nga jël. ngoo hmm? jël. vingt vingt quatrième. ah yaa ngi ànd ak sa yaay tey. Hmm. yaa ngi tane bu baax. très <laughs> donc. Euh, sëñ bi dégg nga dégg nga réaction yaayam dégg nga aussi réaction xale bi liñ naan nettali ci làmmiñu borom am déet la ko daan dal la mu daan gis ci doomam ba mu ko fi indee résultat bi mu fi gis yow jëloo sax jëlagoo kàddu moom moo waxal boppam xale bi confirmer loolu donc euh, defe naa ne euh, Moustapha waaw d'accord Saliou résumé en anglais alors donc euh, Vous l'avez euh, compris certainement, chers internautes, chers téléspectateurs. Donc, vous avez entendu ce que Doyen Aziz a dit en, Wolof. Donc, vous avez aussi eu à entendre ce que la maman de ce jeune garçon a pu témoigner sur le Khalif général de Djinn, le roi de la médecine traditionnelle. Donc, au début, quand il venait, donc, son fils euh, qui était un peu donc, euh, souffrant ne, ne se manifestait pas d'abord. Les esprits qui étaient en lui ne se manifestaient pas. Mais grâce donc vraiment au Khalif général Diao, le roi de la médecine traditionnelle, qui lui a donné du liquide vite fait et qui lui a demandé euh, donc de, de, de, de, faire du bain avec, donc de, laver son fils avec. Finalement, les esprits se sont euh, donc euh, manifestés, donc ont réagi et il y en a certains même qui sont morts à cause de ce liquide vite fait. Et son enfant commence vraiment à se refaire santé et vraiment à être à l'aise. Et même donc euh, lors de sa composition, vous avez entendu l'enfant qui a parlé, qui a dit que vraiment il se sent mieux. Donc grâce au liquide vite fait. Donc, un liquide liquide très précieux qui est uniquement délivré par le Khalif General des Jinn, le roi de la médecine traditionnelle. So, ladies and gents, dear followers of TMS TV, welcome to your favorite channel, the channel which is showing every So, you see then this very lady, being with, uh, her son. You see, the son was just a little bit ill, but he wasn't showing that he was possessed by jinns. But the, mother just came to see the Khalif General of the jinns, the king of all the kings. and you know telling her just to just take a bath with it, just to you know ma make a bath uh, for her, her, son with this very liquid Vitfay. We see then that the son is feeling better now, and that's what the mother said. The, son is feeling better, and thanks to that liquid Vitfay, even the son is doing well at school. And uh, in the past, he wasn't being able to work nicely at, the school, because of this very liquid Vitfay, you know, feeling better. So now the Khalif General of the Jinn will just will deal with this healing session and then finish all the spirits that are possessing this very boy right now. So I will just let him the floor, the Khalif General of the Jinns, the king of all the kings. He will just talk about this situation and try to let us know what happened exactly about this very boy. jërëjëf euh, euh, wax ngeen li gën a am solo Aziz Diagne sëriñ bi ñu lay ziaraat di la jox sa wàccuwaay mbokk yi ñu ngi am mbégte di ànd ak yéen sur la TMS TV di télé bi nga xam ni. moo feeñee lépp lu nëbbu dégg ngeen sama gars yi ni ñu ko waxee kon defe naa ni man ci fi may gën a dugg rek mooy ci vite fait bi defe naa ni nit ñi ñu ngi jóge fu ne ci àdduna di commandé vite fait bi gis ngeen am na GP boo xam ni presque chaque semaine mu ñëw ñu commandé yóbbu États-Unis yóbbu itali fépp ci àdduna bi kon gis ngeen ni defe naa ni vite fait bi su fi amul woon kon caaf dana xëm Hmm, ak euh, cuuraay volcan joni joni bi te defe naa ni loolu mënuloo ko am fenn ci mondo entier lu dul fii kër Alaaji Thierno Moule Sow nga xam ni li mu am li ko yàlla may toujours ma wax ko moom rek la ko yàlla may ci ko suuf mu neex mu naqari li ko yàlla may moom rek la ko yàlla may donte nag am na sëriñ yoo xam ni ñu ngi koy toppandoo loolu nag sant yàlla la euh, bu ko euh, sëriñ yi di toppandoo maanaam seeni i wërsëg li ñuy jël ci moom kon defe naa ni Euh, loolu c'est important ba léegi ngeen ñu suivre en direct sur la TMS TV defe naa ni euh, lii yaayu xale bi expliqué defe naa ni lu lu leer nañ la euh, yii nag ay répétition la rek parce que à chaque fois ñuy interviewer ñoo xam ni dañuy jóge ay Italie dañuy jógee Amérique dañuy jógee maatam ñuy def témoignage yu yem yu yu comme li soxna si wax wala yu wala yu gën a yéeme te bés bu ne nit ñi di ko seetaan. sur la TMS bi kon defe naa ni nit ñi loolu nekkatul kumpa ci ñoom xam nga lii kumpa fi mu ne nii ci ñoom eh, ñi nga xam ni eh, mosuñu ñëw ci kër gi wala mosuñu seetaan TMS bi mais defe naa ni le xalif général moom dimension moom il international donc euh, fi mu ne nii xanaa li des mooy ñi nga xam ni dañu bëgg mu ñëw eh, fekk si leen ca bitim réew defe naa ni loolu mooy coow li fi mu ne nii te defe naa ni du yomb nag damay dellusi rek ci li Jóob di ma faral di souffler saa su bu ma gisee rek damay naan ah Moustapha des na ci kanam sëriñ bi pour jot ci moom du euh, yomb de te defe naa ni egsi nañ nag ci pandaw gi sëriñ bi pour jot ci moom sous de temps euh, du yomb kon ba léegi ñu ngi leen di ziaraat bu baax a baax sur la TMS TV bi nii rek lañ koy defee nag saa su ne en dehors même Euh, du xalif général euh, TMS TV euh, dina leen indil lépp lu jëm ci wàllum information ci ci ndigalu sëriñ bi ni mu ko defee woon Gambie dinañ ko def aussi ci yeneen ay gox daañ ko def lu mel ni Morolan de ngeen fan yële sëriñ bi mi ngi doon wax nañu dem foofu daañu dem aussi fan yi ba Matam ngi joloon Somone nga xam ni dex ba amoon na fanweeri jinne yoo xam ni moo sonaloon waa dëkk ba defe naa ni ndaw si bi mu ñëwee fii weddi gis bokku ci bi mu duggee ci kër gi te bi muy ñëw fii weer Abdou Aziz mu munul wax premier jour bi mu ñëw ci kër gi la wax te avant mu fiy jógee sëriñ bi génne na fanweeri jinne yëpp ci moom kon defe naa ni loolu lu am solo la day baax ñu koy préciser kon sëriñ bi ñu ngi lay ziaraat di la jox sa wàccuwaay di la delloo kàddu gi. waaw macha allah alhamdulilahi rabbil alamin auzu billahi min asheytaani rajim wala hawla wala quwata illa billahi al azim gannaaw bañ sante yàlla ñoo ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu mbokku taalibe yi ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan ci TMS TV di nuyu doyen Aziz macha allah di nuyu Saliou Samb di nuyu Moustapha di nuyu Kara di nuyu Alseeni di nuyu Yaatma di nuyu ñëpp di nuyu Diop di sant suñu borom bu baax a baax defe naa ne nag xale bu góor bi xàmmee ngeen ko euh, macha allah bëri na ay jinne yi ñu génnee ci moom bëri na tamit ay jinne yi nga xamante ne vite fait bi rey na leen bëri na tamit mm, ay jinne yi nga xamante ne vite fait bi génne na leen moom nag usine la usine jinne maanaam xaw ma cinq cent jinne moo nekk ci moom defe naa ne xam ngeen loolu mooy xale bu góor boobu ngeen déggoon jinne bi wax na ne euh, ëllëg day nekk ministre ca France jinne yi ba ko faat defe naa ne jinne boo fii lañ ko lem téye ko fi gis nga kerew nu mu doon xeex ak man fii ba ma téye duma ko ah, léegi nag tey ñëwaat na ñu xool lan la d' abord ñu doog a continuer macha allah di leen nuyu bu baax di ñaanal jàmm di sant yàlla bu baax di jul ci yonente bi sallallahu alayhi di kontaan bu baax a baax di gërëm suñu borom nag ñun amuñu lenn lu dul yonente bi sallallahu salaam man suma lépp yonente bi la sama lépp suma yaram ak lépp Muhammad Allahu Muhammad sama biir bët ak sama làmmiñ ak kon na xam nga ne yonente bi deselu ma dara ñun kay ñoo deselu yonente bi waaye yonente bi deselu ñu daara Sénégal nag. Euh, yonente bi moom fii eskay rek la ñuy wax mais bu ñu dalee ci kawam benn benn ngay gis ñuy jóg di wax waaye nag am na ñu bëgg yonente bi ku mel ni mu Moule soo ko ni ma ko waxee sama bakkan dama ko teg ci yonente bi macha allah moo ma gënal sama ndey gënal ma sama baay gënal ma lu ma am man moo ma gënal su ma njaboot moo ma gënal lépp lu ma am ci àdduna bi yonente bi moo ma ko gënal man waxante wuñu am na ñoo xamante nag dañuy waxantu waaye bu jëf jotee du ñu jëf ñun yonente bi moo ma gënal lu ma am tey bu ma buñ ma waxoon yonente baa ngi nii lépp loo am ci àdduna nga ñàkk ko nga dee léegi léegi ma daal dee léegi léegi ànd ak yonente bi salaa salaam man su ma lépp yonente bi la ñu nag du ñu wax dañuy jëf macha allah di sant yàlla bu baax a baax di gën a kontaan bu baax ndax fii ku ñu fii màggal yonente bi moo tax muhammad njool màkka yaa leen gën macha allah ndeysaan Makka yaa leen gën. salaam salaam macha allah. ñu ne kuy Thierno mu ne Sow. ñu ne mooy doomu soxna Adjaratou Mariama Kamara. ñu mm-hmm. ne kuy waajur ñu ne moom du Aliou Sow. yal na yàlla yokk ay leeram. macha allah ñu ne kuy Thierno mu ne Sow. ñu ne mooy xalifa général des jinne. ñu mm-hmm. ne kuy Thierno mu ne Sow. ñu ne li ko yàlla may tuur suuf moom la ko yàlla may tuur suuf. muy tuumal jinne yi. ba Amérique ba États-Unis fépp dans le monde. di leen téye fii ci kër gi. ñu ne kuy Thierno mu ne Sow. ñu ne mooy borom bi peer bi mooy furaay borom furaay. ñëwaatal ci yonente bi ñëwaatal ci yonente bi. macha allah ñoo màgg yaa leen gën. sallallahu ko defee neex na. ma ne bi. boo doon xuural baat sax day neex. yonente loo ci def maanaam. boo ñuy nax man boo may nax sax boo ma naxee ci yónente bi ma nangu man nag dafa am secret bi nga xamante ne dafa nekk sama diggante ak yónente bi loolu man du ma ko wax dafa am secret bu nekk sama diggante ak yónente bi salaa salaam du lépp lañuy wax waaw kii nag maa ko def addiye Muhammad Rasulullah joxal ma ko addiye bi kooku maa ko def ci addiye yónente bi waaw ñun lu ñu am man Thierno Moule nee naa la sama lépp yónnente bi la ki nga xamante ne sa yaram ay Allahu Muhammad ah <laughs> wax dëgg yàlla nag bu ñu laalee yónnente bi boo yënguwul nag gore woo sama biir bët bii boo xoolee da ngay gis Allahu Muhammad sama bët bi kon nag bu ñu laalee yónnente bi boo yënguwul moo tax keroog ba may yëngu sa xaw ma na fan laa nekk dama ne yaan man wa nañ dama dégg vidéo bi rek ma ne ko nañ wàcc ci suuf jour boobu sama xol dafa tàng jër xaw ma lan moo tax xol bi di tàng ma mer énervé ma wàcc wax ba ma yéegaatee su ma soxna di ma jege ma ne ko pour l'instant bu ma jege instant bi dama mer dama énervé sama xol bi di tàng ci biir xaw ma lan la parce que xam nga ku gën di mbindeef yonente bi salaa salaam fii ku ñu laaloon sama maam nga wax mais yonente bi moom mooy patron ñëpp mais bu ñu ko laalee benn benn mooy wax man nag la xalif général ma teg sama bakkan jóg wax ak ñu bëri wax nañ ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm gis nañ ñu bari jóg nañ wax nii la yonente bi mooy patron mooy chef kon nag bu ñu laalee sa patron patron da ngaa war a jóg wax kon nag ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi salaam di kontaan bu baax a baax ñun amuñu dara lu dul yonent bi man sama dund sama life yëpp yonent bi sallallahu alayhi macha allah waaw. Euh, solo li koy dëggal rek mooy gis ngeen fan yile ci ginnaaw ñu génn Kara euh, photo bi nga xam ni defe naa ni ay million de sénégalais ak le monde entier nga zoomal ma photo bu baax a baax. Mhm. defe naa ni lii. ku mu génn sa kanam defe naa ni li ko yàlla may moom rek la ko yàlla may ci ko suuf moo tax photo bi day wone que ni le khalife général léppam yonent bi la léppam yàlla suñu borom la ba yàlla jagleel ko lii defe naa ni képp ku tappe ci internet bi fépp foo mën na ne ci monde bi defe naa ni gars yi commentaire nañ ci waxati waxati lii nag du ñëpp la ko yàlla jagleel ci kaw suuf il faut nga nekk wàlliwu nekk nitu yàlla dëgg am lu la yàlla may ci kaw suuf nga xam ne lu mu mayul kenn kon defe naa ni lii sant yàlla la moo taxaat sànq jóob damay dellusiwaat ci kàddu mi rek nee na des na ci kanam tuuti alaaji Thierno Moule Sow nit ñi daañu bëgg a jot ci moom euh, te du ñu mën a jot ci moom loolu nag defe naa ni dañ cee yegg si ba pare parce que le xalifa général bés bu déplacé woo dem bitim réew fu mu mën a doon ragal naa ni delluseem fii Sénégal dina dina am waaye waaye du yomb de parce que tey bu demee fu ñuy wax Makka wala mu dem fu ñuy wax Arabie Saoudite ci dëkk naar yi bu fa tegee tànkam donte yàgg na fa di dem bu demoon Amérique tey bu demee Italie nga xam ni nit ñi ñu ngi koy xaar ba léegi koo wax ni sëriñ bi day ñëw foofu du la sax gëm parce que da wax nii Euh, sëriñ bi mënul tëb tëb rek dem parce que bés bu ne ñi ngi koy soxla Sénégal bés bu ne ñu ngi koy sollicité te kat euh, nit ñi fii rek la ñuy gis ci clinique bi muy fees dell mais am na yeneen déplacement yoo xam ni c'est privé sëriñ bi mi ngi koy def moo tax ngeen gis tout le temps sëriñ bi euh, il est tout le temps occupé du mën a parfois. nga day bëgg a ñëw 9h ñëw midi mais du ko mën parce que sëriñ bi aussi nit la mënul nekk ci li ñuy wax tubaab au four au moulin donc loolu daal lañu amoon luñ ci wax sëriñ bi di la ñaanaat di la ñaanal aussi gudd fan ak euh, wér gi yaram euh, di wax ni aussi loo kontaan ñu ñoo la ko gën a kontaan parce que yonent bi defe naa ni mooy gën gi mbindeef comme ni nga ko waxee sànq moo la gënal sa lépp ñu it aussi moo ñu gënal suñu lépp yonent bi defe naa ni. Euh, ku bëgg ëllëg suñu borom dugal la àjjana rek defe naa ni euh, da ngay topp ci ay tànkam kon euh, ba léegi yéen ñu suivre euh, sur la TMS bi kon sëriñ bi ñu ngi lay ziaraat di la jox sa wàccuwaay di la delloo kàddu gi. macha allah jërëjëf jërëjëf Moustapha kenn du yonente bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah kon nag ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi comme d'habitude rek léegi nag ñu jàkkaarloo ak kii. xale bu góor bii ñu xoolaat tey tamit lan moo ñëwaat ndax nag moom usine la waaw mu ngi may xool di ree c'est yow la kan yow la kan Hein vi vi Hein C'est qui Vie. Vie. yow lan nga. gaynde bu ñuul. ah. gaynde bu ñuul. gaynde bu ñuul. kii lañu waxoon bu ko mercredi fekkee day dee. déjà kii. Hmm? kii. kii. su desee Sénégal fii un waaw day ah alhamdulilah bu dee un an nga wax moom dañu waxoon bu motee trois jours day dee ma ne leen du dee bu dee un an kay alhamdulilah balaa un an du mot lool sax fekk jinne yëpp fulkan jinne yi du jeex nga ne jinne yi du jeex fii jinne yi du jeex ni dugg rek si moom ci xale bi lu tax <laughs> barki Dembo Njaay dañ ne bu ko mercredi fekkee day dee ah defe naa mercredi bi jàll na ba jàllaat wala. waaw fii nga fanaanoon xam nga génne nañ jinne ñu ne bu mercredi bu ko fekkee seen kër day dee ma ne leen du dee ma génnee jinne boobu léegi mu ne bu fi un loolu moom du egg foofu parce que yeneen jinne yi dañ leen di téye mais nag dégg nga lu wax nee na bu nekkee Sénégal fii jinne yi du jeex luy loolu. dañuy dugg ci yaramam rek rek rek. lu tax nga ne bu nekkee Sénégal fi jinne yi du jeex. fii dafa bëri jinne Sénégal Afrique. waaw. su génnee Afrique jinne yi du mun du mun a duggaat ci moom parce que yëpp jinne tous les jinne qui sont rentrés sur lui. Mm-hmm. sont rentrés en Afrique. Ah, jinne yi ko dugg yëpp Afrique lañ ne. léegi moom bu dee moom Afrique la ne. moom fan lay dem. il va pas changer de pays. loolu de wax bu yàqu lay doon ñun du ñu fi nekk loolu di am waaw loolu moom du mën a ne ñun yàlla xam-xam bi mu ñuy jox ak baatin bi mu ñuy jox ci wàllu jinne loolu c'est faux déjà yow lan mooy sa problème ak xale bu góor bi. loo ko toppee hmm? lan nga ko toppee xale bu góor bi yàqal ah, ah? ko yëpp ah yàqal ko yëpp yàqal ko yëpp dañ laa yónni walla kenn yónniwu la kenn yónniwu ma tey kenn yónniwu la tey tey yaa ñëwal sa bopp walla lan mooy sa problème hmm? lan mooy sa problème te Ibrahima nee day ñëw mais kooku du Ibrahima dafa ñëwoon depuis lu matin matin. waaw. léegi ana Ibrahima. ana Ibrahima. ana Ibrahima dem na Amérique. dem na Amérique pour un an. un an day nelaw chaque chaque deux siècles. waaw day def un an nelaw. moom un an nelaw. sànq Ibrahima moo ñëwoon sànq bëggoon dugg. waaw. mais Ibrahima ci boppam dinañ ko yee mu ñëw wuyu suñu. dem na Amérique. waaw mais dinañ ko woo mu ñëw uyu si ñu. léegi ñu tuubal la génne la ci xale bi. waaw. mbokk yi gis ngeen xale bi ngeen di gis ni dafa am 11 ans wala 10 ans gis ngeen ko xàmmee ngeen ko ci ecran bi bu toogee di wax nii nga yaakaar ne xale bi mooy wax fekk jinne bi mooy wax gis nga yaayam moo toog nii. gis ngeen lii lu yéeme la lu garaaw la jinne yi buñ ko naree topp ni mën nañ yàq avenir am ñun nag dañu nekk di dimbali nit ñi comme li ngeen di gis nii rek léegi nag xaaral ñu tuubal jinne bi ñu daal di koy génne ñu xoolagum keneen léegi waxal ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an ashhadu an laa وأشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله عبده ورسوله بس نكتاي بس نكتاي توبنا توبنا ci diine lislaam duguna allah mbokk yi gis ngeen jinne bi tuub na xam ngeen ne amul li gën diine lislaam diine lislaam c'est le diine paix mooy diine sang sang yi Muhammad salaa salaam mooy diine bi nga xamante ne diine solidarité la diine yërmande la diine noobu la tame macha allah kon nag jinne bi tuubal nañ ko léegi nag ñu jox ko tur ñu jox la tur waaw léegi ban tur laa koy tuddee lam yalit mule xam ngeen wax naa leen xulwa euh, allah dama koy tuddee char dama koy tuddee ay jinne léegi lam yalit mule xam nga xulwa allahu am na fi ahadu allahu samadu lam léegi nag lam yalit mule saar bi yëpp dama ko bëgg a tuddee ay jinne waaw xam ngeen ne Cerno Mule ah xulu allahu xam ngeen ni moo ko fonkee yàlla fu muy waxee boppam fu muy waxee amul ndey amul baay amul dendandoo kon nag moom laa ko tuddee lam yalit mule léegi nag lam mule noonu nga tudd dégg nga léegi jinne bi tuddee nañ ko lam yalit mule mbokk yi gis ngeen liggéey bi ñuy def nii du liggéey bu yomb liggéey bu metti la da ngay dajante ak ay jinne yu doy waar ay jinne yu garaaw Ousmane ah déjà yeneen Ousmane ñoom dañuy bëgg que kii quitte le kii quitte le continent africain ah. kii parce que sinon day sonn sinon Djiné kii dafa mus a dem France xale bi. dafa mus a dem France. déedéet musul dem Paris. Uh-uh. ñoom dañu bëgg il veut il veut le faire sortir du continent africain parce que euh, ce sont des gentils nous on refuse. ñan ñooy bëgg mu génn continent Afrique bi. africain. ñan ñooy bëgg mu génn fii. les autres Ousmane. Ousmane mooy kan Djiné la. de daa am benn Ousmane bu baax bu koy topp. ah cinq. daa am benn daa am yu mag yu baax yu koy topp. ah Ousmane ay jinne lañu ñoom it. waaw ñu ne wax nañu sa biir bi sax wax nañu si biir bi. ñu ci wax. ñu ne baax na trop. ñu ne naa ko diw ci loxo droite bi dafa jeexoon keroog. Ah. tuuti moo ci desoon dafa ah. jeexoon. ñu ne ma biir bi diw ko ci loxo droite bi. biir bi mbokk yi waaye bu diwee ci loxo droite bi. waaw jinne bu ñëw naan amatoo benn xam-xam. mbokk yi gis ngeen bu ñëw mu doole. jinne yi sax dañuy conseiller nit ñi. wallaahi dañuy jënd vite fait. waaw léegi léegi nii ba may xëy si sama benn taalibe. dafa jënd vite fait bi. jinne bi moo ko conseillé ñaari jinne ñoo ko topp benn bi yéefar la moo ngi nii sama portable kenn ki yéefar la kenn ki jullit la jinne jullit bi moo ko conseillé demal jënd vite fait Thierno Moule. mu jënd vite fait bi. waaw ba mu jëndee vite bi tuuti moo ci desoon xaar ba mu pare. ba mu jëndee vite bi. mu denc ko cinq jours xam nga vite boo ko jëndee bu demee ci dëkk dafa war a posé wu foofu ba installé dëkk bi nit ki doo ko utiliser Ousmane ne ko na installé parce que loolu laa koy wax tout le léegi nag sànq ndaw si ubbi affaire bi rek yuux jinne bi yuux ba may ñëw nii léegi sax maa ngi ko filmé kon vite fait bi lu muy wax rek laay dëggal jinne yi sax dañuy conseillé nit ñi jëndal vite fait Thierno Moule parce que jinne yi xam nañu vite bi yàlla da ci def barke mm-hmm. macha allah. ñëwal. waaw bitee bi tuuti moo ci desoon tuuti. jinne bu baax bi ñëw ne ma diw ko ci loxo droite bi. comme comme bëriwul. jinne bu baax ni ma ko diwee ci loxo droite bi. Hmm. ku ñëw day yuuxu mu naan amatuma xam-xam xamatuma dara instant yi gis gisatuma dara. nii lañ nekkoon def boo ko diwee dañuy ku ñëw rek loolu lay wax ku ñëw rek loolu lay wax. <laughs> ku ñëwee loolu lay wax après mu kii ne ma diwaat ko encore mu ne ma chaque 24 heures nga diw ko ci comme des bëriwul. diw ko ci loxo droite bi rek yow nga nga bàyyi ko noonu te dañuy wax si Thierno Moule Sow sax ñu ne ci yàlla moo ko may. Mm-hmm. ñu ne yàlla moo ko may loolu lañ nekk di wax. dëgg la waaw. waaw. mbokk yi loolu defe naa ni am na solo Abdou Aziz témoignage yooyu. waaw euh, vraiment un témoignage très émouvant mais très aussi révéla révélatrice hein, ce que la la la maman de ce jeune garçon vient de dire et par rapport à l'efficacité ah de sa de sa de sa vite fait ah comme son nom l'indique xaw ma <laughs> sëriñ bi ban magie la jëlee maanaam tur boobu nu ko inspiré sax ba tuddee ko vite fait mais daal tur bi daal uyu na borom vite fait uyu borom en tout cas tey muy ay moments yoo xam ne nii euh, c'est des de d'émotion tamit parce que xale bu nekk nii nga xam ne tey euh, il est porteur d'espoir ay waajuram rawatina yaayam am yaakaar bu mu def ci moom mu demoon ba mu découragé bu l'avez entendu tout à l'heure le marabout dire Euh, on avait même prédit sa mort le mercredi dernier. Alors l'enfant, machallah, il est là, bien important, parce qu'il est en face du marabout. du dëgg marabout bi tamit euh, Moustapha ce qu'on peut retenir mooy euh, ci waxam yëpp dafay delloo maanaam sang bu sang sang yi li mu moom mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam donc defe naa loolu am solo la. du dëgg sànq yaa ngi wax ne euh, dañ koy toppandoor waaye olof daf ne toppandoor sa maas. du dëgg nit buy toppandoor day toppandoor <laughs> toppandoor baasam du dëgg yàlla nag moom mooy maye mooy jagle te yàlla moo ko jagle lii moo ko ko may te mu accepté ko avec humour avec humilité ah avec vraiment beaucoup de grandeur tamit te defe naa loolu lu am solo la en tout cas ñun kontaan nañ trop vraiment biñ gisee xale bi nii vraiment euh, muy wax ah muy wax jinne bi waaw jinne bi di wax maanaam di wax def ay révélation yu bare bari bari bari bari bari tudd ay tur ba fi nii gis nga ko vraiment yaayam am na yaakaar trop trop trop ci moom Saliou un résumé en anglais. Thanks a lot, uh, Dwayne So you heard, dear followers, uh, you know, of TMS TV, your favorite channel. You heard what the, the, this very woman has just said. she was just explaining about the liquid vitfe, how the liquid vitfe is really important. Even some spirits are just, uh, giving her kind of advice, telling her to just put the liquid vitfe on the right hand of this very boy because the liquid Vitfay is only the the, the, the, this liquid who can just prevent them from uh, hurting this boy. So you see that it is really important the liquid Vitfay and this liquid Vitfay can only be given by Thierno Moulé the Khalif General of the Jinn. So you heard then uh, what the boy said about the spirit. Uh, some spirits are very kind and others are so wicked. And then he was saying that whenever he stay in Senegal, the spirits will be just getting inside Bamulay So is here and he is ready to hail this boy nicely. So let's just uh, wait for him. He will be hailing this boy. It won't be so easy because this boy is having many spirits. But inshallah, you thanks to Chano Mulay So, the hallucination of the jinns, he will be, uh, feeling better. Uh, bi bu ñu koy commenté fii ñun dañuy yéemu sax bu ñu ko tegee fee ba sëriñ bi di ko yëngal da gis ci saase uh, day fuur ba nga xam ni Euh, dafay mel ni rek nga dugal ko ci benn butéel bu mag nga tëj mais da ngay gis day bëgg a exploser loolu euh, ay kéemtaane la ay mbir la te boo waree ci la monde entier amul fooy dem ñu jaay la lu mel noonu ñu jox la lu mel noonu amul ça su nulle part donc loolu defe naa ni sant yàlla bu baax a baax la kon sëriñ bi ñu ngi lay ziyaara di la delloo di la jox sa wàccuwaay di la delloo kàddu bi jërëjëf macha allah seen commentaire yi am na solo macha allah jërëjëf léegi nag ah, jinné bi ñu daal di koy génne mu daal di génn xale bu góor bi macha allah jinne yaltu yaltu jinne mbokk yi jinne baa ngi noonu di génn moom sax génnam méttiwul lam yalit mu le boobu génn na jin la de na def sawa yow la kan Ousmane X ah Ousmane X Ousmane bi may jàppale bi may ah. jàppale ah kii cousin Ousmane X la wax de waa ñoom ñoom ay Ousmane lañu Ousmane R Ousmane L aussi. waaw il y a Ousmane R il y a Ousmane. moi je suis moi je suis le deuxième Ousmane. ah si yaayam dafa maîtriser sax Ousmane yi. ma ne yaayam moom dafa maîtriser Ousmane yi sax. mbaa ah. Ousmane Ousmane il est en haut il a dit que je rentre sur lui. ah Ousmane. ah il est en haut Adjana Ousmane Ousmane il est Adjana. il est Adjana. ah il est en haut. il est en haut. mais lu ma la bëggoon laaj noo def yow ba man kay ma kay damaa job bi sax man <laughs> man ma commencé sag bi rek après ñu commencé ñëw ñu ne ñun dañu dañ koy jàppale ñu commencé ñu ne ñoom dañ koy jàppale hmm. après ñoom ñoo ma commencé di wax ne ma bit fee bi kii bi cuuraay bi bu hmm, koy defal tuuti rek hmm. nga commencé di ko suur ñoo ma expliqué yëpp jinne yi waaw <laughs> ñu a expliqué ñu dem ma ñu ne ma defal noonu après ku dem rek sa morom ñëw ku dem rek sa morom ñëw mm. ñu ne ñoom dañ koy jàppale parce que li nekkoon ci moom dafa bëri ñu ne nekkoon ci moom dafa bëri waaw au centre aide au centre aide ah. mais moi Ibrahima ma poursuit dana Ibrahima da leen sonal Ibrahima bu ma ko jàppee damay lakk da leen sonal Ibrahima trop ne rey na rey ñaar rey na si ñaar rey na ñaar la si ñoom Ibrahima si leen si yeneen Ousmane mooy ni koy jàppale noonu rey na si ñaar Ibrahima rey na si ñaar waaw si lundi Ibrahima non l'autre mais ñeneen yi ñoom dinañ dundaat ah. trois jours lañu ñëw lundi pour faire quoi hmm, nee na dañu ñëw pour dundaat lundi ils revivent xanaa sëñ bi lii day rek li mooy almaxtum waxoon yal na yàlla yokk ay leeram waxoon na ni presque Guinée yëpp dañuy ñëw dugg ci biir Sénégal. c'est pas grave si ah, wax bi léegi. léegi hmm? sëriñ bi du du hmm, c'est un bon marabout. Oui. n'a pas il n'a pas d'autres personnes dans il est c'est international. Hmm. Qui est capable de. qui est capable d'enlever moom la mooy formation boobu waxoon fii. jinne formation bu bon boobu. Ousmane c'est moitié jinne moitié humain. ah Ousmane. oui. moitié nit moitié jinne. nous tous jinne. gis nga de ñëpp a koy waxandoo li ma nekkal li ma yor jinne yi sax xam nañ li ma àndal. waaw ah, li ma àndal jinne yi sax xam nañ ko yum yàlla la yàlla rek donc yàlla kese man maa ngi jaaxle ma ne vite fait mi ngi jeex waaye ñoom ñoo ñëw rek ñu ne ma ñu ne ma jëlal def diw ci kii bi rek loxo droite bi ñu ne ma boo diwee ci loxo droite bi rek yow setaan leen rek ni ma ko diwee ci loxo droite bi ku hmm. ñëw kay <laughs> ku ñëw dee naa dee naa amatuma dara xamat gisatuma dara waaw yow kay mun nga ñu wax ci bis fee bi macha allah. <laughs> eh bis fee bi kay koy ñaanal gudd fan ak wér. ndeysaan yàlla ko yàlla may ah. gudd fan ak wér. dafa guñu dara wallaahi amuñu dara sax. ma lu ma waral man damaa tiit sax man parce que da sang affaire bi rek ñu commencé di génn di génn di. waaw di génn. tey. <laughs> sëriñ bi moment yi bu fekkoon ni dem na bitim réew. jaaxle dana am de yow ak ak ñu bari ñu fii ñëw. wallaahi eh, sëriñ bi kay yombul moom. yombul de yombul yombul. mu war a dem te newu fi jaaxle dana am de. ba jaga fu ñu koy waxee man xoolal man jour boobu rek ki ko ki ko naroon rey fattoon na ko sax. Mhm. fattoon na fan yi fekk naa la fi benn guddi sax nga jaaxle. nga ne naa la utal oto. xam nga xam nga yow gisaan nga maa ko ma fanaan fii. jour boobu dafa ñëwoon Ibrahima dafa ñëwoon mooy da koy rey ba xale bi fattoon sax jour boobu dafa fattoon. léegi man si laa woote Algérie ma ne ko xaaral ma ñëw fanaan fi ndax ma nga mhm. ku ci ku ciy jaaxale tiit rek lu mu guddi guddi da daw si ñëw fi fanaan si lu mu guddi guddi dafa guddi ah, waaye dama sama benn xarit journaliste moom <laughs> moom moo ma ñëw déposé moom ma ñëw déposé si lañu fanaanee fii Algérie wax na ma ko ñu fanaan ba ci ëllëg sa waaw si lañu soog a dem mu ne bi nee na bu fanaanee da da koy rey ma ne ko na ñëw na ñëw fanaan ci soog a ñëw fanaan fii ci waaw woon na ma wax ma ko loolu nag yàlla la rek lépp yàlla la lépp suñu boroom la allah moom moom tabarakallah moom moo ma sàkk ba may sàkk ba muy def ci man lii tàgguwul kenn waaw lii nag jànguma ko fenn amul benn sëriñ bu ne moo ma jàngal lii lii suñu boroom moo ko préparé woon ci man hmm. sama maam nag samay maam hmm. dañ daan nekk ak ay jinne hmm. waaye nag li ma ci yàlla defal ñoom defalu leen ko Sunjata Kayta defe naa ne moo buddi woon garab bi Ah, guy gi. jinne yi topp ko. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, eh, Omar Bala Mouhamed Bala man sama yenn maam yi bu ñu daan bay ci tool. Mm-hmm. jinne bu ñëwee ci tool yi lekk ak seen kii dañuy daan topp tànk jinne yi ba jàpp leen duma leen. sama benn bàjjal moo ma ko wax ba mu jógee Guinée Bissau mu ñëw fii mu ne ma yow li ngay def nii sa maam eh, sa maam yi dañ ko daan def. moo mooy li may def nii hmm. sama sët sataat yi dañuy ñëw def li garaaw lu lu may def ci kattan hmm. suñu borom hmm. lii don la mayum suñu borom la waaw maanaam yoon bi maa ko xàlli macha allah di sant yàlla bu baax di julli ci yoonante bi salaa salaam di ñaanal ñëpp jàmm lii yombul fa jinne boo amul xam-xam jinne yi parfois damay fii du du fii kese de même bu ma demee kër ga damay jëflante ak jinne yi jinne yi du fii kese même bu ma nekkee kër ga gars yi duñ ma may jàmm dañ may woo damay jëflante ak jinne en distance. te gars yi ñemewuñ de. ah mane mane ma ne sëriñ si nag loolu mooy problème bi euh, kenn ñemewul sóoru ku nga xam ni jinne dafa dugg ci moom. ah bu ñu ñëwee ci ñoom rek. boo boo xamee loolu la rek boo sooboo tuuti rek da ngay reculer nga daw da ngay reculer daw. loolu nag mooy problème bi. mais bu fekkee ni yàlla daf la may lim la may. waaw ah. Euh, defe naa ni saa su ne rek nit ñi fu ne lañ lay solliciter dans le monde. Mhm. xam nga Abdou Aziz li ci gën a yéeme. ki nga xam ne da nga koy téléphoné ay weeri weer doo ko mën a jot ah ne ca bitim réew xam nga ni loolu euh, il faut nga nekk koo xam ni da nga am mayu yàlla yàlla daf la may li nga xam ni mayu ko kenn donc defe naa ni loolu aussi c'est c'est important mais Abdou Aziz euh, li ko yàlla may euh, seetal ñuy filmer di ko wone partout dans le monde nit ñi di ko commentaire xam nga ku yàlla may yenn nii kooku rek mooy am fit di filmer euh, nit ñi di gis mais di ci faju parce que xoolal même vidéo yi boo koy seetaan da nga ciy faju bu ñu lelee ñetti Thierno Moule yi boo boo boo amee jàqee boo ko tuddee même ci suñu Gàmbi bi xam nga ca waxtaan am na fu ñu newoon ñu xaw a am benn benn benn benn benn benn benn euh, xawma nu ñu ko waxeeti xaw a tardement mm-hmm. mais xam nga ne ma maa maa leen njëkk a wax ni troisième jour trois Thierno Moule te effectivement noonu la demee defe naa ni ci ñetteelu fan ba ci lañ dugg biir Gàmbi kon defe naa ni euh, boo boo xool jant bi xaw ma nu ko olof Njaay di waxee weddi gis bokk ci. lu ne fàng kenn du ko waaw lu ne fàng kenn du ko jeex kon sëriñ bi defe naa ni buñ doon buñ doon commenté fii ba suba duñ fi jóge du jeex kon ñu ngi lay delloowaat kaddu gi. di la jox sa wàccuwaay. saluer <coughs> Ousmane El. ah Ousmane El. nee na Ousmane El dafa maa. waaw ñu ngi saluer ñu koy jàppale. macha allah ne ko dañoo gis man la. Uh-huh. am na Ousmane El am na Ousmane la. R R ak R. yooyu yëpp dañ koy jàppale ñun ñoo ñoo. macha allah RXL. waaw. Uh-huh. Uh-huh. moi moi je vis en bas. Ousmane ah en bas. en bas. amba moom ci suuf lay dund. waaw ci suuf la nekk. Hmm. Hmm. Ah. Ousmane R. Ousmane R il vit ici. il peut aller en allah. donc ça c'est le corps de Ousmane R. ah c'est allah mbokk lu yéeme la fii nag kër xalif général des jinne Thierno Moule le king of the king. le roi médecine traditionnelle di monde loolu la yàlla dogal macha allah di jàkkaarloog jinne yeeg dëmm yeeg formation yeeg ñëpp laay jàkkaarloo raag-raag bu métti gis ngeen barki Demba Ndiaye xeex bi ma xeex ak fii jinne bi xeex bu métti. waaw ndekete gars yi dañ ma préparé loon dañ ma complot woon gars yi waaye nag ñam nañ de la <laughs> xalif général boo ko pré <laughs> day préparé jaxase ko fii jaxase yi métti macha allah sonal ko. duma ko duma yi metti loolu nag sant yàlla la ñun saa su ne ñoo ngi préparé wu daas fanaanal toog doo ñu bett mug nag macha allah ndax xam lii lu yéeme la ku ne client bu ne ngay encaissé moo tax dañuy daas fanaanal nag toog boo ñëwee ñëwee am ñoo ñëwee rek fekk ñu am noo ñu fekkee macha allah dégg ngeen lu jinne bi wax sànq nee na ci adduna bi yëpp actuellement maa fi ëpp xam-xam barki Dembo Ndiaye moom la jinne formation bi wax mu ne xam nañ ne ci Afrique yaa fi ëpp xam-xam dañoo bëgg nga ñëw ànd ak ñun di liggéey ak ñun dégg ngeen loolu xam nga kon ñoom dofuñu mboŋ nañ waaye nag suñu borom moo leen ëpp xel fuf moo tax mu mu def ci man yàlla ak yónente bi macha allah kon nag dañu sant yàlla bu baax di julli ci yónente bi salaa salaam yàlla bu ñu gis suñu bopp maanaam yàlla bu ñu rëy te ñun <coughs> xolu rëy newul ci ñun macha allah ñun suñu lépp yàlla ak yónente bi la di jàppale jaamu yàlla yi parce que nag euh, ñii boo amul bopp mënoo jëflante ak ñoom soo ñàkkee dañ lay jéem a jënd ci alal soo amul xam-xam ñu jéem la jënd kon nag ñun macha allah alhamdulilah rabbil alamin yàlla matal nañu yàlla mooy matal lépp waaye ñun macha allah ñoo ngi sant suñu borom bu baax di julli ci yonente bi léegi nag ah bii ban jinne la L la wala ah R L ah ñii ñoom amuñu problème. ñoo ma doon expliqué. allah. kon kay ma ko ak ñii ba suba. ñu leen ko garder leen ma ko ba suba. ah Ousmane R c'est mon frère. Ah, X. Ousmane X. macha allah mbokk yi gis ngeen mais yéen foo leen jóge hmm? fan ngeen jóge ba di ko jàppale. Toi, joge es... Moi, je viens d'en haut. X. Hmm. Il vient d'en bas. Mais pourquoi vous suivre le, le petit là Pourquoi ngeen topp ko lu tax lu tax ngeen topp di ko jàppale pourquoi lan moo tax nous ouais. notre vie ouais. c'est la même chose que pourquoi vous suivez le petit là hein c'est notre frère on s'entraide waaw nga ne kan mooy seen kii nu mu nekkee seen yaay. Hmm? nu mu nekkee hmm. Hmm? kon kon les kon y' cinq. ah kon kii seen. deux Ousmane deux deux Ousmane qui sont nés en haut. waaw. Ah. trois deux Ousmane qui sont nés en haut. deux Ousmane qui sont nés en bas. un Ousmane qui est né kan moo leen jur nga ne. Euh. kuy seen yaay. nous a un double. chaque fois. mais chaque fois. les chaque fois on a un double. on a un double de E. on a un double de N. parce ah ah. que am na àdduna ci suuf. trois dama am ci kaw. Hmm. mais ñu ne. waaw ñu ne ay double lañu mais am na ko xamante ne ki ci kaw ñu ne ko gaynde bu weex la waaw am na ñoo xamante ne picc ah picc bu weex picc ah bu weex mu nekk ci suuf. waa koo tam dalay protéger ah, ak gaynde bu weex bi ah waaw léegi ñeneen ñi ñoom comme jëmmam lañu yor comme jëmmam moom lañ yor. mais waaw. waaw.

Pour faire quoi après Hein ah, Pour continuer à vivre ensemble. Seulement. Ton eh. frère. mais est que xale bi noonu la déggee français. xale bi waaw dégg na français. day làkk français. waaw dégg na français. pas beaucoup. pas mais Ousmane tous les Ousmane ne comprend pas tous les Ousmane ne comprend pas bien olof. Ah, ok nee na jinne yi ñoom Ousmane dégguñu wolof bu baax. actuellement jinne mooy wax. ça va pas finir de s'il reste en Af s'il reste en Afrique. C'est pourquoi depuis tard on essaie de, de, de lui faire quitter l'Afrique pour comme ça ça va finir. Hmm? En Europe parce que parce que s'il reste ici. Ça va être dangereux. Hmm? papam fu mu nekk fii. papam mu mais lañ nekk di wax de que Afrique ñu jinne yëpp ñëw Afrique. Hmm. ñu ne jinne a ñëw Afrique. surtout au Sénégal Al waxoon na ko. waxoon na jinne yëpp ñëw nañ Sénégal. ñu ne jinne fees dell ak yi. Hmm. kay dañoo bari fii. loolu kay ñun kay lu ñuy jàpp. dafa bari trop. rawatina nag xam nga Sénégal moom. dafa nekk dëkk bu am bayre ci àdduna bi jinne yi dañuy dañ ci kumpa fii doomu aadama yi dañuy dañ ci kumpa jinne fii moom dafa fees dell ay jinne maanaam fii Carrefour la karafuur la waaw léegi Ousmane hmm? déjà yéen yéen a ngi mu yow Ousmane ell wala S L L y a pas S ah L non dama bëgg a laaj <laughs> ak euh, X. Ah, ah, ah, L et Ousmane X. Ousmane L et Ousmane X. xam naa ne de macha allah Ousmane Sam Sam dina jombi nag ay Ousmane L ak Ousmane E. <laughs> bokkuñ gis ngeen. c'est des waaw. waaw ah, waaw mooy mule mule deux mule mule trois mule mule quatre. déjà nous nous ah vous deux. vous vous hmm, de vous. oui. vous suivez ces vidéos. quel est votre commentaire. Hmm? quel est votre commentaire. c'est un bon marabout. oui. Hmm? et y a pas d'autre marabout que lui. loolu na. macha jinne yaa ngi signé de. il faut le il faut à la main droite. comme ça il n'aura plus de puissance. Hmm. litre macha allah ñu nga jinne xam nañ chaque 24 heures. nga jinne yaa ngi jinne yaa ngi gën a wax ci vite fait macha allah. man de gis naa ci aussi lu ma yéem fan yële. Ah. ci vite fait bi. Hmm. Alseyni daf ma oo may waaj a ñibbi may ma may may gaawantu ba agenda bi ma yor am ay documents. dugg ci siwo bi defe naa ci kanamu yaat ma am déet ah waaw ci seen kanam affaire bi tooy xep-xep ma yóbbu ko sama kër mais defe naa am na lu ma la ci wax <laughs> ah ba nga nee ma ah war nañ dem ci sëriñ bi mu joxoñ ci vite fait bi man la man de am naa ko ba pare parce que euh, samay document dugg na ci vite fait bi ba tooy xep ci njëkkalante bu ma doon njëkkalante ba yàlla jël euh, samay document duggal ko ci siwo bi macha allah waaw loolu moom defe naa ni euh, xéewal bu dajeeg man la daal. macha allah loolu dañ ciy santaat sëriñ bi bu baax a baax. waaw waaw macha allah gis nga jinne sax dañ ci commentaire xam nga mbir la bu yàlla def barke. yàlla da ci def barke bu demee ba jinne di ci commentaire sax nga xam ne ne kon mbir la bu ci yàlla def barke. tey tey rek wax naa la am na ki nga xamante ne ñaari jinne ñoo ko topp benn bu baax ak bu bon bu baax bi moo ko conseillé jëndal vite léegi nag ba mu jëndee vite fait bi denc ko cinq jours mu ko ubbee rek daf ko laalu ko sax daf ko ubbee rek beneen jinne bi yuuxu rek ñu woo ma téléphone mooy mooy confirmation lu jinne bi wax ni ak lu soxna si wax ak yow li nga wax ni vite fait njëriñ bi njëriñ bi ci kanam la nit ñi gën a xam lan mooy vite fait parce que ñun lépp lu ñuy ñaan bu ñuy def damay tëju fii def suma xam-xam ak may xar baax bu baax a baax ba yàlla nangul ñu ñaan bi moo tax ñi ñaa ngi ci gis seen bopp bu baax a baax léegi nag xam naa ne guddi na euh, macha allah gannaaw Ousmane El moo nekk fii ma wax ko mu gérer ko ba suba ñu daal di mën a dem dallu nag parce que depuis le matin ba tey waaw ñu daal di dem dallu ah Ousmane El ah gérer ma ko ba suba dégg nga <laughs> mbokk yi. ñu ngi amati mbégte euh, ba léegi yéen a ngi ñuy suivre <clears throat> sur la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu euh, nëbbu ànd ak euh, làmboog njëriñ comme ni ko sëriñ bi di waxee ne karaanoon loo koy waxee fi loolu am na solo ba léegi yéen a ngi ñuy suivre sur la TMS TV gis ngeen commentaire yi fi Saliou wax soxna si lim fi wax Abdoul Aziz Diagne ak sëriñ bi. Euh, lépp jëm ci kër xalif général kon defe naa ni fii li may wax toujours rek euh, li fi am amul fenn dans le monde entier muy huit fee bi euh, di cuuraay volcan jooni jooni bi di également taalibe yi aussi di fi indi addiya parce que fii daarulaay la lu fi waaye def rek sa njëriñ la parce que da nga koy gis macha allah kon defe naa ni loolu lu am solo la ngeen ñuy suivre sur la TMS TV ñuy ànd ak yéen nag saa sune rek kon defe naa ni ngeen teg seen loxo ñu ñëwaat léegi ci kanam.